champion. waaw Lamine. champion ngoog doomu ndey Tapha Gueye ak Moussa Fall. waay waxal waay sa bàtti kaw waxal waay. le trio de choc. waaw yàlla def na ko nag. ay <laughs> da dégg mbër bu ngeen entraîné moom moom day daan. ah incha mbër bu ngeen entraîné mu pare boobu. waaw xam bon xam nga nag loolu yàlla def na. waaw. ci suñu mënin la bokk. waaw. mooy que ni tey euh, ku ñu mu yàlla mënti booleel. Hmm. ñu fexe ñu étudier exactement kii lan moom mooy ay point faible am. Hmm. waaw su ko defee améliorer ko ko fexe aussi mu jàpp forme ba nga xamante ni le jour ji daal li muy wuti. après yàlla dina ko ci dimbali daal après ci moom lay des. Hmm. waaw parce que nit moom loo ko mënti defal mënti defal. bu dara desee lu dul ci géew gi la ci des moom moo ko war mu ngi defal boppam. waaye daal mbër bu leen dénk boppam dina pare la. waaw loolu moom yaakaar naa ni yow xam nga ni sax wax bi yàqu la parce que tey bu dul dara mu yàlla def na mosuñoo jëflanteeg nit ku mënti doon rek wala mbër te fekk nii rek li ñuy xaar ci moom nekk ci mooy pare physiquement. Mhm. totalement. Mhm. loolu important ci athlète bu mu mënti doon rek boo xam ne da ngay dem di jongante Mm-hmm. temps lay laaj nag temps bi nga xamante ni daal moom lay laaj dañ koy jël. def ñu mm-hmm. war nga xamante ni wax dëgg yàlla yow ci sa bopp di nga pare te li ngay def it di nga ci am yaakaar. mos ngeen entraîné mbokk ngeen gis ni parewul ngeen entre na ko deux mois trois mois ngeen gis ni parewul physiquement. noonu. Hmm. parce que euh, mbër xam nga deux mois trois mois nga ciy préparé mbër c'est que dafa am programme booy topp xam nga programme bi ngay topp. étaler ko sur deux trois mois. Mm-hmm. résultat final bi mooy que ni rek euh, jàpp forme par force. ok Lagros bi muy bëri ak ak ak ak ak yaakaar naa yéen a ko préparé. waaw Lagros bi muy bëri ak euh, Sa Thiès waaw ñoo ko préparé fii waaw. wala physiquement. Ah? est-ce que pare woon na. non c'est que Lagros il était prêt pour te dire que ne xam mm-hmm. nga Lagros boo xoolee euh, période bi muy ñëw fii. Mm-hmm. Euh, dafa tombe woon nag période boobu il avait pris trop de poids. Hmm. il avait pris trop de poids mais bi mu ñëwee fii. waaw ah. liggéey nañu ba nga xamante ni pratiquement lépp lu doon déchet ci yaram bi par contre ñu dindi ko quoi. ngeen dindi bien physiquement. Euh, malgré que nag il était pas volumineux pas volumineux ça veut dire que ni gis ko ni di ponkal ma mais il était prêt vraiment physiquement il était prêt. waaw hmm. donc di ko nag euh, le jour J. Mm-hmm. yàlla def na nag Sa a meilleur que lui ce jour-là et puis voilà yàlla may ko ndam mais pour dire que ni ce jour-là on sait que ni Lac Rose il était prêt. Mm-hmm. Ah, mais nag dafa jeexoon de jeex lan moo tax ngeen ànd ko mu. ah jeex. Hmm? bëre ak tàkk. waaw mais comme comme ni ma ko waxee rek c'est que xam nga bi ñuy dugg ci préparation boobu déjà dans dans un premier temps. c'est que combat bi li ci dese woon bareetul woon trop trop donc du coup nag après nag il fallait gérer temps bi nga xamante ni moom la war a mën a am pour euh, pour euh, pour préparer compétition bi donc pour te dire que ni voilà il pouvait pas être plus que ça parce que si je me rappelle bien il faisait vers les coups de cent dix kilos. contre Sa Thiès. ok ok ok am na solo. waaw léegi kon ci loolu la ñuy waxtaan ci ñu tànn ci benn combat Sa Thiès Boy Niang. waaw. boobu laa bëgg ñu waxtaan ci. d'accord man lay déglu sëñ Lamine. jeex na yàgg na waaye nag combat la boo xamante ne ba léegi mu ngi des ci xel bu dañ ko bëree. ak forme wax dëgg yàlla combat bu neex la woon wax dëgg yàlla. waaw. gaaw na mais neex na. gaaw na bëri nañ ko ci fulla ak fayda et puis euh, ce jour là Boy Niang yàlla may na ko ndam il a mérité le meilleur il a gagné. Hmm. yéen yéen yéen erreur yéen erreur la Sa Thiès defoon ci combat boobu noonu. boobu. tactique côté technique. non c'est que jour jour boobu. Hmm. boo xoolee Sa Thiès. Hmm. il était prêt il était sûr de lui. Hmm. xamoon na li mu bëgg a def. mais moom sóoraale woon tamit li booy ñaa a def. lu dëgg. donc ce qui fait que ni su fekkoonte ni rek euh, c'était quelqu'un boo xamante ni tey dafa am lecture combat. dans un premier temps bi muy dem di wuti Boy Niang xam nga bi muy wuti Boy Niang boo seetloo bu baax Sa Thiès bi mu koy attaqué waaw bi mu koy attaque xam nga dafa tibb suuf di mhm. commencé mais bu mébee mhm. xam nga da ngay gis bu mébee def ni avancé tuuti da ngay gis Boy ñaar mhm. dafa yokk ñaari pàcc ginnaaw arrière arrière tuuti ba pare génn à quarante cinq degré xam nga loolu boo gisee ñu naan la nit da nit parce que nit buy avancé si kaw ça veut dire que ni yow yaa ngi ci ligne de mire am ligne de mire am mais par contre boo Niang dafay arrière ñaari pas yu ndaw ba pare gin a quarante cinq degré légèrement donc ce qui fait que ni nag par contre dafay xaw mel ne luy jiwo Sa Thiès en fait mm-hmm. mu def ko benn yoon parce que ñaari yoon am benn instant mu xàcc dóor bi mu xàccee dóor euh, droite bi daa mel ne da ngay daa mel ne instant bi yow da ngay xàcc di door ndax téléphone bi sax teewoo ko normal daa mel ne yaa ngi xàccaale di dóor. parce que xam nga li ma lay wax nii xam nga combat bi buy ñëwaat sa xel gi. Hmm. ngay ngay imagé waat euh, combat bi ni ko ni mu ko doon doxalee après voilà même boo ko expliqué dafay mel ni comme si tu yaa ngi ci dans le feu de l'action en fait tu vois xam nga bi mu xàccee rek euh, dóor bi dalu xam nga après fi mu naan nii booy ñaa taxawal. mais boobu moom personnellement. waroon na mën a changé stratégie en fait. Mhm. xam ni par contre li mu indi woon au départ. par contre que ni il va avoir du mal avec stratégie bi mu jëloon noonu pour dem rek songi Boy ñaar directement. Mhm. mais foofu defu ko donc mu avancé. donc bi mu mhm. avancé. gis ko muy dóor ngi euh, avancé tak tak mu dóor benn dóor ñaar après nag Boy Niang boo xoolee bu baax il a fait la lecture que ni. a chaque fois bu ko Sa Thiès mébee mu yokk mhm. ñaari ñaari pas loxo yi day wàcc mhm. au bout de la troisième fois dafa wàcce loxo yi def nii bi mu nee nii di méb rek nga gis Boy Niang dóor ko benn benn droite donc bi mu ko dóoree benn droite naa ni nag instant yooyu moom it foofu mu bëgg a fayu mu bëgg a mhm. fayu nag war nag bëgg song booy Niang bëgg ko jàpp par force instant yooyu nag bi mu ko bëggee jàpp par force foofu nag aussi yaakaaroon na ni peut-être que ni nag moo ëpp Boy Niang doole ci période ci foofu noonu mais par contre Boy mm. Niang il était présent et présent won ko ni ko par contre par contre ëpp loo ma doole benn et puis foofu noonu pour man Sa bi ñu jàppantee bi ñu jàppantee mu jéem a xaw ma tour lañ koy wax xaw ma lan Boy Niang Boy Niang demul ñoom ñaar ñu rëpp ñu jógaat mm-hmm, waaw waaw waaw pour man boobu Sa Thiès mhm. la mu waroon njëkk a def mooy que ni dafa waroon ne tekk nag jóg taxaw ne tekk soo amu téye ko ne tekk nag déglu Boy Niang tuuti parce que boobu ba léegi Boy Niang moom du ko doon Boy Niang da koy déglu muy def pour dire que ni Boy Niang di contre attaqué li muy def donc période boobu bi ñu jógee c'était la moment où que peut-être que ni il fallait rectifier les erreurs du départ te boo xoolee bu baax jàppante bi li ñuy jàppante yëpp booy Niang taxawul benn place waaw Boy Niang bu jàppee Sa Thiès da ngay gis day def toujours en mouvement mi ngi jéem a fexe nu mu koy waree quoi benn place tu vois donc ce qui fait que mm-hmm. ni dans la tête de sa de Sa donc par contre il était pas lucide xam nga nag après quand tu n'es pas lucide après tu vas avoir du mal à contrôler mm-hmm. donc du coup nag foofu nag au lieu que ni comme li ma la mu ne tekk téye Boy Niang déglu Boy Niang mais par contre il a voulu faire mal donc moo tax nga gis coup yu bëri yi pam-pam dans le vide donc Boy Niang di ko déglu mais après gis nga li ci topp mooy que ni Boy Niang jàpp na ko daan na ko. Mm-hmm. léegi léegi léegi pour yow Sa Thiès technique la def foofu wala tactique lan mu xañ combat boobu noonu. non erreur tactique la rek loolu moom erreur tactique la xam nga tactique bi mu indoon mooy que ni comme li mu doon wax euh, ci signature boo ko déggee bu arbitre bi sifflé foo nekk dans le fekk mën nga ko def ah, mais intelligemment. Mm-hmm. cest à looy dem. en même temps da ngay lire yow sa adversaire aussi li mu lay def xam nga moo tax man la di nga am loo indi yow mais bul fàtte ni yow tamit sa adversaire moom it am na lu mu mu indi am na nag lu mu préparé pour que ni yow boo ñëwee li nga wax boo ko indee mu indi loo xamante ni tey lu koy contre la mm-hmm. donc Boy Niang il a été intelligent sur ce coup-là ça veut dire que ni rek lu lu Sa Thiès jege si rek bu creuser ko ci ginnaaw ñaari pas ba pare nag génn à quarante cinq degré ça veut dire que ni nag tey ji nit boo boo bu la attaqué nga arrière génn à quarante cinq degré loolu dafay wàcc kat day wàññi day wàññi kattan en fait en quelque sorte ça veut dire que mm-hmm. nag de légèrement nag dalay wàññi donc ce qui fait ni da nga yaakaar ni doole la mais du doole mais c'est intelligence en mouvement noonu la ko daane daane ko doole voilà mais c'est une intelligence en mouvement mm. mais, il faut être vraiment prêt pour le faire physiquement parce que tey pour manœuvrer quelqu'un comme ça Thiès si tu n'es pas prêt voilà tu Mmh. Mais Boy Niang, il a été prêt. Je pense qu'il a eu une très bonne préparation. Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que yow gis nga ne dal am na ci combat boobu parce que bari na ñoo xam dañ naan Boy Niang dafa dal ci combat boobu noonu est-ce que jàpp nga ne daf ci dal maanaam buñ est-ce que la amoon mën na am noonu amee woon noonu mën na amee waat noonu. xam nga tey combat bu la ci kenn nax ñoom ñaar ay ñaari mbër lañ yoo xam ne ils se kenn ku ci nekk mën naa daan moromam ci ñoom ñaar ñëpp. donc ça veut dire que ni tey euh, li mën a nekk mooy si Sa Thiès se remet en question en disant que ni rek que ni tey du li ma bëgg def rek def ko mais am na loo xam ne des fois di nga bëgg a def dara il faut nga xam ne da ngay am ay obstacle te ci ob ci obstacle ci fraction de seconde yooyu il doit falloir être capable nag de rectifier en en lançant sur la sur la lancée tu vois c'est pas parce que dama bëgg def lii rek dama koy def par force non des fois da naan damay avancer cinq pas soo ko jàpp waa ji mais boo avancé deux trois pas xam ni waa ji c'est compliqué damay dellu si waat gu ñu préparé waat pour ñëwaat indiwaat leneen. Hmm. loolu c'est important xeexkat comme li ñuy wax rek xeexkat da ngay bëri pexe. pexe yi mooy bu ma indee bi jàllu damay jéem a indiwaat beneen pour pour pour am le rapprochement pour mën a jàppante wala pour mën a xeex moom tu vois. ñun hmm. ñaar hmm. important xam nga loolu yëpp ci ci aussi ci préparation lay doon parce que aussi euh, bër bu mu ci mënti doon boo koy préparé. Euh, di nga gis nag di nga aussi euh, décrypter son adversaire xam hmm. lan adversaire am lan mooy ay foram et lan moo hmm. tax lan mooy faiblesse ça veut dire que ni nag da ngay liggéey ci ñaar yëpp da ngay liggéey ci foram liggéey ci faiblesse am ba nga xam hmm. ne tey boo ci boo ci ci boo ci boo ci njëkk daan rek tu es leer que ni yow tu seras le tour parce que c'était dafay nekk loo xamante ni yow déjà loo préparé la en fait ok ok loolu am na solo ñoom ñaar physiquement kan moo gënoon pare keroog ñoom ñaar physiquement Hmm. non ñoom ñaar physiquement ñoom ñëpp euh, ñoom ñaar ñëpp a taxaw. mais sauf que boo dee xool. Euh, Boy ñaar était beaucoup plus souple que Sa Thiès. Mm-hmm. waaw beaucoup plus souple que Sa Thiès Sa Thiès il était bien hein, physiquement mais il n'était pas souple. Mm-hmm. waaw ça veut dire que ni nag li mu gën wala gën a améliorer ci moom mooy que ni rek la souplesse. je pense que ça c'est important et loolu dina baax ci moom sax moom pour le futur. Mm-hmm. ok ok ok loolu am na solo dama fay gis benn waay bi commentaire sànq ba léegi maa ngi gis commentaire de gars yi léegi dama mënul dagg rek di di ni loo ko waajal loo waajal Ama ci combat bi rek loo ko waajalal moom Ama Baldé loo ko waajalal rek benn waay moo commentaire di loolu sànq. waaw mu ne. mu ko waajalal Ama Baldé rek bi mu jëm si. non Ama Baldé xam nga euh, li ma la doon wax rek moom moo ci nekk yàlla def na nit bu bëggalee boppam dara dimbali ko ci day yomb en fait xam nga Ama Baldé tey jii moom waxuñu sax ci bëri bi ah, moom c'est que moom son problème fondamental te mooy que ni rek je vais être en forme je veux me dépasser je veux faire plus que mm-hmm. je faisais avant mm-hmm. dans sa tête c'est ça xam nga ku lay wax na man daan Modou mhm. Lo c'est pas un problème pour moi. nga daan Modou Lo ah. nga ne daan Modou Lo. nee na Ama Baldé ci boppam. ah. nee na man daan Modou c'est pas un problème pour moi. Ama Baldé nee na daan Modou Lo du problème pour moom. du problème pour moom. maanaam daan Modou daal jaaxal jaaxal ko de Ama Baldé. ah Ama mi jaaxal na waaw nee na moom li mu bëgg rek mooy que ni rek. il hmm. veut vraiment être en forme. Hmm. physiquement sur tous les plans. Hmm. raison pour laquelle nag muy dénkaani boppam. te moo tax man la xam nga am na loo xam ne bu ko nit bëggee dimbali ko ci day yomb. et c'est important. yàlla def na euh, nekk naa Dakar. ak moom un peu euh, jot nañu liggéey tuuti. parce que mm-hmm. toujours rek balaa ñuy jël euh, euh, balaa ñuy mën a prononcé wu ci yenn yi dafa am ay ay ay am lu ñuy wax naan ay test physique yu ñuy def. waaw. yoo xam ne dañ koy def ça nous permet de xam exactement kii lan moo nekk ci moom. Mm-hmm. et que ni pour te dire que ah, a été à la hauteur. Mm-hmm. waaw il a été hauteur. donc fépp bu fekkee ni nag par contre comme yow li ñuy ñaan yàlla rek mooy que ni ñaan yàlla def li li lëmbee réew meeg àdduna bi yëpp yàlla def jële ko fi. incha allah ak tey à la normale. su ko defente ni rek aujourd'hui ñoom ñaar seen combat boobu mën a voir le jour ñu jàpp date et puis que ni mu mën a ñëw préparer wu comme il se doit. après mm-hmm. ñu ci loxo yàlla. waajoon waajoon Balla est-ce que da natt comme ni ma ko waxee rek est-ce que bu ngeen da natt da ngeen natt Balla Gaye maanaam natt Balla Gaye ci Modou est-ce que su la bëggee natt Balla Gaye ci Modou Lo bu ko yemale ak Ama Baldé est-ce que dina bokk. non attention personnes différentes. Mm-hmm. c'est personnes différentes yoo xam ni ils n'ont rien à ñu sax style lu bëri. Mm-hmm. kenn ku ci nekk da nga am sa style lu bopp. Mm-hmm. mais nit nag ki nga xamante ni style am bi mu yor. estilam boobu nag nga koy gën a yokkal ay capacité yoo xamante ni moom dina ci gën a sentir boppam ça n'a rien à voir avec Balla Gaye ah Balla Gaye tey ni ngay préparé Balla Gaye ak ni ngay préparé Ama Baldé c'est deux choses différentes parce que ñoom ñaar ñu benn mm-hmm. kon maanaam préparé Balla Gaye mu war a tase ak Ama Baldé. préparé Ama mu war a ne mu war a mu war a bëre ak Modou ak préparé Ama Baldé mu war a bëre ak ak lu ma bëgg a wax wala préparé Ama Baldé mu war a bëre ak Modou Lo ban moo ci gën a yomb. ah liggéey. benn boo xamante ni tey jii bu yomb la amul de. Hmm. ci mën ci gis benn bu ci nekk day saf sap ba ànd ci lool amul demi mesure de y' a pas de demi mesure. amul jënti c' est et par force. mais tamit di nga préparé mbër nga sa gën a dal maanaam euh, Ama Baldé sa xel mën naa gën dal ci Ama Baldé wala mu gën a dal. ci Balla Gaye non non non non non non non tey il faut il faut se dire une chose Ama Baldé c' est champion comme tous les autres champions xale bu ndaw la il est quatre ans. lu dëgg. Hmm. donc mm. tey kooku tamit boo koy jàppale. Mm. yaw tu es et certain li nga bëgg ci moom di ko am. Mm. xam nga ki nga xamante ni sa xel du dal ci moom xam nga mooy ki tayel ki nga xam ne jéemul dara bëggul dara mais ko kenn mënu ko dimbali. ki nga xamante ni tey jii moom tey dafa sax bëgg a dee mais kooku dimbali ko dafay yomb. du dëkk. kattan loo mën a gis ci àdduna dara du la ko may nag nit liggéey. liggéey nit loo bëgg ci àdduna rek liggéey moo la koy may. domaine mm-hmm. boo ci nekk nag mm-hmm. boo nekkoon sa bureau boo liggéeyul tamit société boobu moom fa mu jëm yàlla ko xam mm-hmm. boo nekkee ci sport bi tam li lay mën a may ndam mooy entraînement ya ngay def et puis ci yoon et puis di say say sa bopp am na foo xam ne niveau boo xam ne boo fa xasee ba toll le haut niveau il faut nga uti ñoo xamante ni ëpp nañ la xam-xam ëpp nañ la expérience pour mën laa dimbali pour gën laa mën a yokk pour nga gën a mën a loolu bokk na ci nga tey ci liy motiver ci luy motiver sportif loolu ci la bokk ok léegi ñu bari xeeb xeeb bari Ama Baldé ci Modou Lô xeeb xeexu Ama Baldé ci Modou Lô xeeb bëri Ama ci Modou Lô xeeb xeexu Ama Baldé ci Modou ñu bari dañ naan la sañ-sañam sañ-sañam sañ-sañam mën na daan ku nekk sañ-sañ képp est-ce que moom lay jële combat xam nga dinaa la wax dara xam nga déjà li gën a am solo ci doomu Adama sañ-sañ dafa nekk loo xam ne du ñëpp ko am. Mhm. kon xam nga préparé ko am sañ-sañ dafay neex. parce que dalay ko dalay leer ni kooku li ngay def ci boppam dana ko def. kooku dalay leer ni bis bu yëgee boppam. mu leer ni ko ni rek te ni amul benn moromam bu ko mën a yëngal te xam na ni kattan bi mu soxla woon mi ngi ci moom. mais kooku ci mhm. daam ko koy téye. Mhm. ah mu ne kooku est-ce que ko ko téye. Ah, <laughs> war naa mat tool kay ni ko waxee noonu. mais góor gi boppam euh, bu yëgee boppam. mu leer na ni tey jii moromu góoram mënu koo yëngal. Mm-hmm. te mu am sañ-sañ lool bu bëggee jóge fii bu bëggee jóge fii dem ci bopp koñ bi est-ce que dina xalaat dina am ku may dogale wala déet da koy jëli. voilà. ah. moom kay waxal rek. ah. waxal gaa yi tontu gaa yi gaa yi tontu gaa yi <laughs> li am solo daal. moom mooy hmm. liggéey. moom mooy moom am solo te ñun loolu lañ gëm en fait. te yéen a koy waajal te dina dina am ngeen yaakaar ne moom. du wax du wax kenn nag ni weer baa ngi nii te gisuñu ko yàlla moom yàlla def na duñ ko des hmm. lépp lu ñuy wax rek dafay fekk aussi daf fiy nekk. dafay fekk loo hmm. xam dañ koy gis dañ koy gis dafay xam ne am kat dañ ci am yaakaar mais sinon duñ ko wax duñ ko lijjanti.